ba pare ma den ma decide lan lay good morning guys na ngeen def naka suba si mbaa ñëpp a ah? Ah, I know it's early but there's something we need to talk about and that is NPP and UDP once again gis um, for those of UDPNs those of you UDPNs yoo xamante You don't get dem to join NPP I'll tell you one thing about NPP NPP mun nañ maaleykum salaam waaye endu leen ak jàmm munuñ ko so solen leen solen ne NPP you guys will be better off because gis ngeen Modou Sabally ak système ñu jox ay muto. dem len ngeen set cycle sax doo ko am di am halis de. because saraxule yi dee faral baro ñoom xamuñ ñana yàgga di deeyoo ci ci ci NPP ana ñoom alaaji bambo ana ñoom ñi ma kinte ñii lan nga gis cycle sax joxuñ leen ko waaye na nga jógee UDP rek nga dem NPP boobu dañ laa méeg nga important dinañ la jox xaalis dinañ la interview dinañ la welcome dinañ def lu nekk you will even meet the king and queen of England just from coming out from UDP nga join the NPP yu tax yéen mënu leen a yéen ñi nga xam ne yéenay génn a UDP di dem NPP lu tax yéen mënu leen a dee ak seen ngor lu tax yéen mënu leen a am fulay am fayda am jom ba nga xamante ni bu leen kenn jënda doo leen am jikkoon nag fees del ak grace te du make noise gis nga nit ki bul nangu mu gën laa gudda ba pare gën laa gaata yéen ñii ngeen xam ne nag yéen a jugee UDP daw NPP ngir luñ leen sarax yéen doo leen sax ay gor parce que jaam rek mooy nekk fii ba gisu fa lam fa bëggoon a gis mu move to the other party pour am fa dara yéen nag yéen ñiy jugee UDP di dem di dem NPP yéen ñëpp ay opportuniste ngeen I am sone bi ngeen jugee UDP di dem li ngeen doon njëkk a xalaat mooy eh, nañ leen dem uti xaalis comme ku jugee UDP loolu ngeen di with this guy that went with seventy youths for all from UDP UDP su nekkoon bank account tey ma xam ñu ngi minus Everybody keep running from UDP to NPP, all because of small change, money. You need jam. yéen di ngeen xeex ngeen di reyante ba agsi fii litul xaalis ay moto ay saykul tax ngeen di daw di jaay seen ngor yéen doo sax ay gor di sabali sabali famille xanaa nga foog ne eh, UDP lañ njëkkee non Ramu mu ngi woon eh, NPP mu jógee fa dem UDP amul lum xasut NPP di wax ne NPP dañoo tëddoo NPP li amut lum leen bàyyilut loo xalaat rekk bàyyilu leen ko tey the same ramusabali Sabaly moo dem ñu welcome ko with open arms am like ana ana am fulla ak fayda man dafa am wax yoo ko it it's not just going to be about politics you're my enemy for life te Ramou lim sotti NPP yep. man rus naa taxaw di janoo waa NPP su doon man la waaye Ramu dafa jógee NPP mu dem UDP sotti NPP xetembe mu jógee UDP dem NPP de leen koo déglu moo UDP léegi mu commencé di attaque UDP because gor su ñami daaw su ñam ñami ñam eh, biir doon gore rek kon ñami daaw yi doy nañ ndax ramu teraanga gu nekk defal nañ ko ko NPP kuy fàtte démb nag baaxuloo te ba mu leen joxee gannaaw daf leen xas waaye dafa am one thing that uh, that that that wakes me up this early morning I am I am meant to be sleeping I haven't slept for like 24 hours dama gis Fa Modou Bojang mu ngi attack Modou Sabally man I am not a big fan of Modou Sabali. God knows that from day one saa yu bindee Facebook bi ak lim rëy yëpp man maa jéem a eh, counter attack ko because I always knew ne Momodou Sabali was it genuine why it's his right as a citizen pour mu join any party of his choice waaye gis naa ne some of UDP supporters yéen a ngi bugg a silence Modou Sabally ba nga xam ne dafa ragal a génn léegi mu binda wala mu wax because mu ngi bañ a upset Baba wala some of the UDP ñoo xam ne amoon na ko ak ñoom te loolu feeyaawut ni ngeen nekkee doomi Gambia boo ko parti bu leen neex la nekkee doomi Gambia Modou Sabally di same as his sister APRC la nekkoon Modou sabali, ban teraanga la APRC Modou sabali jugu fi mu saaga di whole Mandinka katray Why UDP ak NPP wax len 6 six ak nine len bo ci joutal mu fekke moromam Biramu sabali joge NPP dem UDP dafa saga NPP Modou sabali bim mu APRC di whole Mandinka katray la insult Why bim bim biñu gisee ne jógee na eh, pare na pour join parti mu dem join UDP UDP then co welcome with open arms because he was attacking the president. dama bëgg ngeen seet the pettiness of these two parties So you get NPP get them UDP they makes you important So you get UDP get them NPP they give you money and makes you their main priority ñi fa xam ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk di leen guddil di leen bëccëgal muy xiin muy taw muy ngelaw duñ leen faale ana ñoom Alaaji Bambo alaaji bambo daw na ci xiin daw na ci ngelaw alaaji bamboo làkka bu nekk làkka na ko si en ngir NPP ak di président waxuma saykul de tànki moto yiñ dee lonko weñ ñi xale yi di ko dawal amu ko from this party te léegi ku jugee UDP dem NPP saraxulay dar la génne la seen bank account jox la wàcceel la moto yu bees tax xanaa yéen ñana ko deserve ñu utee ñun ana ñoom diyee njaay ana ñoom ñi ma kinte ana ñoom ana ana ñoom capacoli ana ñoom Ahmed Djité xool leen NPP or giñ or Ahmed Djité xëy bu reer doon doy kon reeri daaw yi doy nañ NPP munuñ seen nit mbaaxi ngistal lañ baax te mbaax bi dañ ko bees ne soo jógee UDP dem si ñoom e, ñu ñu commencé la sawo with gifts an and money waaye one thing that, that we need to talk about today, or I need to talk about today, is Pamodu Bojang. Pamodu Bojang Munko make his point of duty to be attacking Modu Sabali Reflight Center. I am not a, fi uh, a fan of these Sabalis, but it's their right. Put you whatever they feel like doing if they're not breaking the law. Bimodu Sabali, neke UDP di eh, président bi di disrespect président bi every day Modou Sabally dina binda five six posts none of these UDPians attacked Modou Sabali. instead yenon a cheer you were his biggest cheerleader yéen a ko doon tàccul yéen ko doon wéyal baabala commando muy téye ay pistol di nataalu di ay machine gun di nataalu Modou Sabally nekk benn ñebe ci cin ci biir Gambia amul benn UDPN bu ko musa attaque o oh, ngeen ko def behind closed doors léegi Modou Sabally dem na NPP yéen a ko bugg a silence to the extent dafa bañ binda pour upset nit wala mu bañ a wax pour upset baaba parce que yéen a ngi koo threaten it's not funny anymore su fekkee ne kuñ jox xaalis ñu attaque la yow Pa Modou Bojang Angleterre biñ la fa déporté biñ ne dañ laa déporté sa airport ba ngay jooy ne da ngaa commit suicide soo ñëwee Gambie dëkk bi nga juddoo yaroo fa màggee fa Pa Modou Bojang démba rek la woon lii bul ko faate fàtte xëju fi waar moom fi fii ku fi fàtte ñu fàtte ñu fàttali la parce que fàtte amu fi fàtte fàtte lu moo fi am we didn't hold you as a hostage just because of that ne every that dañoo ñëw remind la ko waaye nag ku fàtte li la fal li la fal dafa yomba Pa it's about time you wax la ne you are bullying this guy and it need to stop man bokkuma ben parti du NPP du UDP waaye suma kàddu gi suma dégg gi maa ko Pa Mor Bojang who are you to be judging the eh, Modou sabali? yow sa radio station bi xaalis bi nga ko ubbee yëpp du bi nga waxee ne suñ la delloosee Gambia nga commit suicide si la Gambia jug kafung kafung ku nekk génnee li nga am ñu teg ñun ñëpp nekkoon ci diaspora bi ñenn ñu nekk Gambia ñëpp a jóg sotle la one minute ma seen xale di njool umuntu umugore fi simple kira quick kira wezi n'inkingi Mara kile ewe unayomjua Kila sasa yangu nyumbani Yo na ne Amsatou bojan, yo yow Paa Modou Bojang yow nga judo Gambie yaro fi ah Paa Modou bojan sa bo yi melni su ko glu tux nga benaaw Paa Modou bojan biñ ne dañ la jëlee Angleterre delloo la sa bad country the country where you were born and raised sa famille yëpp nekk fi Pa Amadou ngay jooy comme like a baby a three months old baby ngay jooy ci airport bi adduna yëpp di la seetaan nga ne suñ la dugalee Gambia nga xaru Pa Amadou Mbodj ak Gambien yëpp jóg teg boot bañ nga xaru Pa Amadou Mbodj su fekkee da la wax ne Modou Sabally xaalis a tax mu dem eh, NPP waaye eh, yow Modou Modou Pa Amadou Mbodj yow tam biñ la joxee suñ xaalis bi xaruwuloo di xanaa ñu ko delloo We give you the money so that... <laughs> no, Gambian, they're full of nonsense. Pa modu po hana ranga fate. Naka nga atage eh, modu Sabali for the same thing you did. yow sa rajo bi boo gisee sa antenne boobu taxaw yàlla sa commit suicide bi lañ la bañ a loon di waaye bi nga demee ba xam ne commituloo suicide danga bëgg a def business lu tax waxuloo ko Gambien si rek ñu another way yow tam li nga def is the same those fake tears yoo ñu doon threaten ne danga commit suicide moo tax Gambien si jóg sot ku nekk génne li nga am ñu jox la suma dërëm ak suma dërëmi moroom te nga taxaw nga am di audacity di attaque eh, Modou Sabally why because of decide na ne dëgg dëgg ama family man ama Gambien I need a job. Me attacking the president left, right, center 24 7 would not work. It would not work because there is law in the Gambia. And nobody is above the law. Pape Modou Bojang nga ne yow doo bàyyi Modou Sabally every day da nga koo attaque every day because da ngeen ko bëgg a silence da ngeen ko bëgg a threaten to the to the extent boo xamante ni Modou Sabally du bindaat du waxaat pour lan xanaa amul right xanaa da ngeen ko ëppale Gambia xanaa Modou Sabally moom second class citizen la biir Gambia Pape Modou Bojang xam nga lan la xam nga looy def ak sa boñ yi mel ni super glue na nga ñi te nga may ñu jaama suba si dafa teel man I want to Do not make me come for you. Look at Gambien si they fàtte fàttelu doo leen mun a fàttali dis this this this Modou of the toog Muto. solu all time am yaa ngi génn yaa ngi tegal i audio yoo they were a long time ago he was in UDP te gis nga fii ku nekk bi nga nekkee ci parti support am na loo waxoon loo xamante ni tegal efeka yanki party bu es. Danga rus danga ko rus déglu Why is the guy getting torture for stuff that was done in the past? bi moo wax audio yooyu ak bi binda he was with UDP so here boobu doo leen koko ko dooree léegi minute bu nekk ngeen playal ko ko bugg won nit ñi ne Modou is fake hey ninety percent of us are fake Fi ku kuti si bu gudda bi si bu gaata bi bu ñu fata So it was okay, yo, as a journalist, it was okay when Momo Sabali insulted the whole Maninka tribe. a oh, local interview, disgrace loco, tegal loco audio yab ne kon ca jame de ko ah, kon jame ay <tsk> gis billahi no ya jame ya jame naman waaye tey dem na NPP rek ngeen ne du yëkkat na kaam gi fenn ku jóg yéen a ko bugg a noppi loo yéen a ko threaten yéen a ko bugg a silence to the extent yéen a ngi jël all all audios yoo xam ne mu fi mu nekk mu ngi ci biir nawleem dafa toog press he's dining with the president now and everybody wants to dine with the president UDP yéen nag da ngeen feeaw Baba, bi mu ci président bi nekku leen di woon binda di wax dara da ngeen doon wax baro is awa baro ku wax ne Barrow du talk more than three years di ngeen ko court personally tey biñ génnee baba mur gi ngeen wital ngeen président bi wit façon ngi noonu seen si wax yu nekk da ngeen ko ko daan wax xanaa ne ku saga ñu téegal la président bi dagg waaye da ngeen daan xëy suba jot it has to be the president and his family or anybody who support the president Modou Sabally dafa am family Modou Sabally he's a youth he had mouths to feed te liggéey na si jàmme liggéey boo xamante Amna expérience benn boor boo xam ne suñ ko fa tegee mu am na fu mun a développer man ñan laa woori ñiy jógee UDP di dem NPP pour xaalis pour luñ leen fa I'm not worried about ne Modou Sabally dafa jóge lii yow da nga jógee Angleterre nga ñëw Gambie nga ne soo ñëwee Gambie da ngaa commit suicide nga ñëw ba Gambie wàcce ñëw toog fa atta sa commit bi tey nga daax a toog sigara ñu ngi nii gis sa góñ yaa ngi mel ni supa gulu xam nga lan la bàyyi leen nit ki léegi foneetut anymore at force bi mu demee ees yéen a ngee génn di wax yéen a ngee binda maa xam ne da ngeen tiitoon parce que soo nekkee nit ki di xeex ak good cause ngeen jiital ko tros ko mu jékkee-jékki jox leen gannaaw ak lim def yëpp li ngeen def ndoortu géeda yëpp dina leen mer loo to extend. extent waaye soo leen soo leen understandee Modou Sabally put yourselves in his position a young man with family li ko UDP di jox sukarut baraada su gisee the grass is greener on the other side man sax dama move am to NPP pour mu mun a dimbale te man I am Momodou Sabali's number one nightmare Why sometimes we have to be reasonable bàyyi leen he's a father He's a husband He's someone's brother Pamour Bojang your brother after all lu tax nga foog ne yow da nga important right now bi ñu promisé eh, commit suicide commit law suicide ñu jox la suñu xaalis bi nga ubbi si sa business bi di njëriñ ñu yàgg sa doom nga léegi nga ne da ngaa ñëw wax ñu bullshit about somebody who wants to better himself and his family as well. Pamadou Bojang, please behave yourself. Do not wind me up. I am not in the mood at all, at all. I am sleepy. I am tired. I am fed up of talking. I don't want to be talking politics it's it it angers me pour ma gis ne man maa ngee so maa ngee wax loo xamante ñu bari dañ on the sideline wala they think ne man I am NPP supporter will be like eh tey the dafa faral NPP I am not supporting NPP I am not an NPP supporter Why dëgg bi dinañ ko wax de bàyyi nit ki mu i am not right liggéey man Modou Sabally been given a car by this Sarah Hules or whoever got him the car Modou Sabally is not my problem because Mamadou Sabally dem na tural welcome party entertain nañ it's NPP for you so you get UDP dem NPP they will sour you with gifts leena rek see yàlla why anything NPP dinañ la ko entertainer Why the same thing to UDP so jugee yu NPP nga dem UDP lu nekk lañ laa waxal to the extent bi baaba doon liggéey a président Nguri président Adama Barrow boobu dégguñ woon noise bi bari nii may leen ñu jaama yéen tam Gambia ñun ñëpp ko Gambia doesn't belongs to any party you fenn ñun xam nga lan lañ gëm koo xam ne ñëw na pour try pour mu develop Gambia that's all we believe in Why send Jakanori We are sick and tired of some of you UDPNs trying to threaten people just because they make a choice that doesn't favor you. lan la yéen Modou sabali mom gis nga Modou sabali mo waroon a rus li waxal police yi waxal ko eh, Baro waxal ko eh, parlementaire Baro moom su toogee ne moom moo wuccu ba pare mu maraat ko léegi yow lu si sa yoon du yow waxoon nga ne dangaa commit suicide te commitu loo te yow as a muslim sa diine dafa la tënk pour nga use that word ne dangaa commit suicide soo ko defee waxuma la nga def ko de soo ko xalaatee rek dafa xaraam yow li nga def moo gën a garaaw parce que yow yàlla nga doon challenge bàyyi ma Angleterre wala ma ray suma bop tubaab don't believe in blackmail sa doomi réew rewi jog takko jox la xaliss bi takko te yaa ni nii sa antenne nga muna tok ñew di wax Amadou Bojang please respect respect yourself man Respect sa boppa ku nekk am nga right dem yéen nag UDP leen na mooy seen sikka yéen dama foog ne dafa am sëriñ bu leen seetal ne leen Gambia su dut yéen du keneen wala yéen rek yéen a am voice Gambia Gambia ñoo ko bokk fii dañ fee tojante boppa waaye loo leen wax ñu daaj munu leen fee nekk ngeen fitnaal ni ñu ku wax ngeen traité ko ku wax ngeen dugal ko seen whatsapp groupe bi di ko saaga di ko traité wala to the extent ay sëriñ di génna hey, the rudeness has to stop. Whatever Modu Sabali said, it's in the past. It's politics. The game of politics is a nasty game. So, neke politician doo nekk munul jullit munut 100% jullit munut a nekk eh, eh, eh, because Dinga nga wax lu dul dëgga di nga wax lu naxari yàlla promise ñi doo li nga wax do ci def dara nga nan gambie jox len ma réew mi su ma defar ko so toge defar sa bank account so please Pa Modou bojan get a life yow mi so mënoon am fim nek ni. nii rus moo la japp way so mënoon de ndax li nga am sa station bi te xam nga ne way UDP rek ñola de setan ñola de deglu yo Gambian si don listen to you because you don't bring anything on the table loo xam ne dafa favour the Gambian article si binde yëpp it's all about Baba and what favours Baba to the extent your bokka nga one of those two three journalists yoo xam you call Ousainu Darboe uh, his excellency from where pipeline there is only one man with that title and it's in State House Yen solen solen soo wa modu sabali lim wahal li mu baro yëpp tax na warta dem NPP baabo li Baba lim wahal baro moo gën a pire téeméeri junni yoon seen baaba wax ba wax si si the father of the president da ngeen ko faate why are you guys not bringing that up seen Baba wax na ku wax eh, eh, Adama baro dara bi mu nekkee si government Adama baro. he personally will take you to court and he is the law. Because 70% of this magistrate, Momolen appointed in Sitaima. Sir, you President Biyobo, anybody from NPP, uh, eh, UDP Corp, New Winco. And we, we Gambians are wondering how and why. da ngeen di toog a di ko entertain di put ideas in his in his head ne he is the president or he is going to be a president in the Gambia yéen da ngeen foog ne baba rek am bills to pay i am na grown up is Baba is not paying any bill Baba, dëkk bu UDPNs and su ñëwee dafaa ñëw collect su bi ñoo ñibbi the guy is living large he have a very good life Modu Sabali is young he's got a family they need to be fed the kids need to go to school ngeen du ut pour lan mu ngi nii NPP Then lift the ban buñ ko waxoon te ban boobu biñ ko koo teg UDP yéen seen cabinet bi yëpp NPP tay boobu nekkagut NPP di is mini is mini UDP a ban was put in him just because he was working for Jammeh ñuy fayeku Baba and his whalers anybody koo xamante you have a beef with uh, uh, Yaya Jammeh danga ko sippi si ñu fi Yaya Jammeh bàyyi woon and that was because Baba was in power Baba le ka fa nun caa julooye ma bari hani cha Baba bu ka moy the only noise you guys keep making is soo leen soo leen fulee threaten ngeen di threaten Gambians comme yéen da ngeen ñu moom who the hell is this this Pamodu Bojang hamne yo. every time yange gina, yange play audio yaga, yange yaa ngi eh, the di repost I postam yu yaga. Pamodu Bojang suñoo fàttali su fekkee ne ku nekk dañ laa Dinga di sumado eewu suba Pamodu Bojang you were this old you were old and vaccine you stood there crying telling God that if you are brought back to your own country you will kill yourself do you do you forget can I remind you that that happened in real life, Pamudu Boja? How can you be pointing fingers when yours are dirty? bàyyi leen yabaate bàyyi leen yabaate UDP moomu Gambia moomu you why why why Gambia and Gambien si Gambia UDP ak whoever ñu indi pour as presidential candidate bungwin Gambia UDP toogaguñ ci ben sit fi nekani. UDP a ngi Gambien sit ñu ngi fata suñ bakeni ni ba mel ni socc UDP si Gambien si comme frescool munu ñoo nokki suñ dina yaa ngi tàng suñ fata why because they they hunger they hungry for power these people are power mado. and the moment ne remind ngeen youngster. Darboe yéen a ngi second week am in office lan la wa ku nekkut UDP supporter du jox poste si si biir Kama Council and Gambians pretend ne waxut dara lu Pa Modou Bojang where were you why didn't you oh brought up all his nonsense when he sat on that bench and insult the whole judiciary system of the Gambia. That too happened, just like you wanted to com commit suicide happened years ago. Youngs Dabo taxaw na mu saaga magistrate lawyer si Gambia the whole bar system be yëpp saga in the Gambia so luta tax ko responsible for his words or actions bi wahene waxee ne ken employ kenn ku UDP supporter te Gambien ñoo Gambia Gambien ñoo sànni karta su voting jotee du du benn parti moo dee vote du benn tribe moo dee vote the whole of the Gambia Gambians at large ñoo dee vote pour all parties yéen a ngi indi fitna boo xamante ni du mujjee ci alaaw ma sàlli may leen ñu jaama seen noise bari na ay waay UDP UDP doo leen ñu suturaal xam ne dëkk bi métti na métti boo xam ne And and <laughs> no no you bi be dëkk bi sax dafa bari it has to be UDP's way or the highway If it's not UDP's way, we got to receive insults, threats, and all these post and and the thing is I kenn benn journaliste boo xamante nii yaa ngi Gambia nga nekk UDP ngay binda anything lo xam dafa important or concern the Gambians it always has to be Baba how disrespectful Sabali should he should definitely start firing back and you guys are winding him up. The problem with you is yen dangen ragal because you guys can write. All you guys can do is come ha ya long sabali afanung. And when Sabali comes out, he'll speak good English. The guy is clever, very intelligent. He is bright like the sun. He speaks English. He writes English. Sabali surayte be post nga hamne ki Don yaxut lonc lonc yi ko don jox demutoon school rek di play akara wala di laxu ci gannaaw school yi di tour cigarette Modi di pa Modou Boja yebate nga yebaate weesuwut ngay toga looye Ousseynou Dabo nan ko his excellency I am so happy ban ban ban <sighs> Gambie dal ñun dañ wax kat dega ñun fii dañ dee neenu nit suñ la neenoon nag fekk demuñ ba drag sa whole generation ñu meeg soo ne yéen ñëpp you guys are suffering duñ la bàyyi affaire bi lan la ah saabari xale la yéen da ngeen foog ne Sabaly dafa war a nekk UDP ngeen jox ko seen pick-up truck bu paan boobu Johnson bu nekk Sabaly dem su jógee Guinée bi Guinée dem Guinée Conakry jaar Burkina Faso jaar Côte d'Ivoire jaar Cape di collègue ay ku sol ci saat bu yëloo rek mu collègue la indil eh, UDP pour ngeen am nataal bu rafet mun a dugal social media da ngeen foog ne Sabaly is like the bone collector Sabaly has a mission Sabaly has bills to pay te comme yéen some of you supporters yéen a ngi ko disrespect to the ex waa dama fay suma xaalis dama ko tegaloon bi mu nekkee prison comme yéen da ngeen ko defaloon favor bi mu nekkee prison as your brother ngeen xas ko si loolu ne because génne na UDP lépp a taraanga boo leen ko defaloon da ngeen ko war a nangu gis naa koy xajaani na waaw man de fay na ma suma 20 Same on you guys. Same on you. You guys have no chill. lan la xanaa saabale Sabalengi am dom. Sabalengi ngi takk ko am family members yéen ni comme yéen Sabaly dafa am prison dafa nekk prison ngeen tegal ko ngeen ko fayeku ku nekk waa kon yow dimbale ma mu delloo ma li ma ko joxoon comme yow hey sister yow am nga fayda de delloo na la sa 20 euros what is 20 euros Pa Modou Bojang yow tegal nañ la lu ëpp 20 euros xanaa yow bi nga waxee da ngaa commit suicide te commit loo suicide xanaa delloo nga ñu suñu xaalis bi du da nga jël suñu xaalis bi dem ubbi dem ubbi liggéey et eh, eh, start sa job sa business bu ne muur ba pare di ko throwback on Gambian face So yu nekk nga gena di oye Lawyer dabo his excellency Ham nga ndax neex nañu waaye get to hell Why? bu ñu sonal de bu leen sonal Modu sabali. I am not your fan I am really not one of your fans I'm not man you're not my cup of tea but not I won't be sitting here ma let these people bully their way just to silence you du hew bokuma ben parti faruma fen man fara feñe la man ci ci line bi neena sufar su far di am it is su far di am man gambien ci la faral suñ yu xoma génn suñ contane ma ma ma ma ma ma celebrate Pa Bojang I'll tell you one thing though whatever you smoking you need to stop xaw ma ban dose nga nekk nii waaye it's so high get off your high horse te su fekkee ne danga mu xeet mu xeet bàyyil jàpp la ndax fi mu nekk nii yaa ngi paranoï yéen a nekkoon ci fil bi di runga ci moto yi di dawal cycle mu ñoo fi am moto bu ees pour zero mileage four wheel ñu ne ceeb du ñu benn ca nokkos bala waaye doom itam duñu benn de Modou sabali raw na la moo la gën a jànga moo la gën a intelligent moo la gën starting te soo tiyul sa gémmiñ gi moo laa gën endin ndax li nga wax di ko jëmale ci moom tontuwu la ba tey te yéen ñëpp xam ngeen ne Modou Sabally mun naa wax mun naa binda he is rude he had a carefree life and he is not afraid to use it so sulam la Modou sabali hamal xamal sa ba lañ la ko wax Pa Modou Bojang Pa Modou Bojang respect yourself de Pa Modou Bojang sa sa crazy glue suñ waxe rek xawma dang de tux di nopp xawma ma ah wa baax na Modou sabali yo nak sa nopi gi fim nekk Iran bar dem bal delusi lan la yéen daal yéen yéen fii ngeen nekk ngeen xeex képp ko xeex man xam nga li ma jaaxal si yu bi da ngeen di xeex yéen daal nguur la yéen yéen fenn faru leen nguur nguur du nekk Gambia xeex ngeen yaayaa jàmme jaay ngeen bagaasam yëpp si seen nguur la nekkoon bi baaba nekkee ci nguur gi te ay Gambia jësiti pres eh, former président bi sax doo ko dee dégg ban boor xamuloo ban boor la nekkee Where Anakausi, where are his, his goals and, and vehicles? Hey, UDP. UDP is too early. I am tired. I want to sleep. UDP, please, please, please. Talk to these fools called supporters and let them behave. Waxuma ñep People like Pamod Bojang laiwa. ak képp koo xam ne yaa ngi traité Momodou sabali Sy yéen daal da ngeen fi nekk xeex ngeen Adama Baro Adama Baro dem képp ku doon liggéey ci Adama Baro da ngeen koo xeex to the extent da ngeen di wax ne Baro warta employ any APRC supporter or anybody who worked with Jammeh are they not Gambians answer me are they not Gambians don't they have the right to work yéen daal da ngeen bëgg a Modou Sabally nekk eh, UDP mu mu remain fa di bindal président bi di disrespect président bi every week ñu arrest ko si ku am njaboot yéen loolu kon yéen kontaan ngeen bi ñu doon arrest Modou Sabally saa yu nekk di ko yóbbu muy dem ay ten days di waste time am doomam yi di ko mis ci famille am jaaxle jabaram jaaxle mu dem ba xam ne lekkati kese naxut béy and he decide he decide ne you know what enough is enough this is not taking me anywhere Mudem join the mighty AA NPP ñu jox ko moto jox palas. place at Modou Sabally Bija bi jàmme demee ba bi seen into power this guy was banned from holding any any position si Ben Ben sitting president eh, Ben sitting government and he never complained no he wasn't complaining Modu Sabali Musuta Jogmu Wahne Lin Kodefni, this ban was because UDP was in power. Nyom Ajiyam Seka Nyinyip, they were there. Usainu. Uh, he was the vice, pre vice president. Mujige vice president, neka minister. Still, Modu Sabali ban ban chikoa. Because Yenan Komere he worked for Jame and dafa insult on the whole Mandinka tribe the one thing about UDP they will never forget a bad deed they will come for you tey wala ëllëg UDP soo leen defee dara mu naxari dinañ find a way pour fayee Yen yéen Gambien si nag talk a di dof doflu yéen a ngi di dof doflu Modu Sabally is one one of their own one of their finest for that matter guddil na leen bëccëgal neen man man man I tell you one thing man I never trust the guy man saa yu nekk damaa wax UDP Modou sa mi ngeen di use pour mu xeexal leen Barrow dina turn against you mu xeex leen with Barrow soo leen seetee suma life two three years ago this was what I was talking about tey foo leen Buka bugg silence nit ki duñ ko nangu nag duñ nangu ñun ñëpp mënuñoo toog ñu far leen ngeen noppiloo nit ki moom rek lañ daan arrest every week moom la ñoo oo fokk bi su demee Tuesday lañ ko oo wala Friday mu óor la ne su eh, closing time jotee du ñibbi këram fala moo nekk Monday wala Tuesday mu doy ko demaat koor xanaa ngeen foog ne si loolu Pamadou Bojang yoon gisal lii yëfi Batiman la a guy attacking another guy just because da ngeen boka a bokk gis-gis just because kii dafa am a brighter feature than you You sa radio station bi nobody listens to you the Gambians don't don't listen to you Pa Modou Gambians consider wuñ la as journalist yo you are a UDP supporter a UDP journalist it will stay that way lu ñu xew Gambia lijjantee wuñ ko ci yow affaire bi lan la yow Modou Sabally ak liñ ko xas nii ba am na ñoo xam ne ñu ngi UDP they love the guy with all their being yow nag fi mu nekk suñ taxawoon teg Modou saabali teg lu loo ubbi sama bunta bi Full or ah, half? And the full suñ la taxawalee taxawal Modou Sabally am na online radio walaay bugg a ñëw fitnal si xaalis si commune society am bañ ko tegaloon si la ubbi online radio yow suñ taxawale Modou Sabally pas Modou Bojang Modou Sabally moo la gën a jëntal loolu moom werante wuñ ko yow yaa ngi solu mel ni yaa eh, si 70 si ba tey Modou Sabally is up to li ma ci jaaxal comme moom parti bu mu bokk eh, yére boobu Modou Sabally sol na fi green génn green saf yélo Modou Sabally dëcc yélo ngente yélo takka yélo programme yélo friday yélo ah Modou Sabally foog nga cuub wala nga change sa wardrobe yow it di nga jaaxle de <laughs> matu nga kallan Arlen, semua wak EBE buka deh. Ini ki doga ne. Pamodu Bojang yo modu Sabali mola gena gentle modu Sabali mola gena bright modu Sabali mola he is well spoken mola gena jaga. a jàng yang Bojang xanaa kuna dan songa dem Modu Sabali is educated deh, the guy is intelligent also suñ la tegon UDP Modou Sabali taxaw ñu ne dañoo seet who is well loved believe me even Baba will choose Modou Sabali over you ak lim nekk NPP yëpp suñ la tegee teg Modou Sabally Baba will still choose Modou Sabali over you Modou Sabali was his lunch buddy you you never you never invited for lunch because category googu da nga war a dress well you have to be well spoken sa boñ yi dañ war a pour nga bokk ci lunch body baaba yi soo sabali raw na la leave it startal fene affaire bi la duma tekki doo tekki ban dëkk la am ah, ah Pa Modou yow tam noppalekul noppalekul Modou Sabally dem na de an képp koo xamante nii Digga digga digga nit nga war nga xam ne xoolal léegi ni attention seeking la doon def pour nit ñi notice ko Why bi mu gisee ne saa yu koolee for attention ñu arrest ko teg ko place toog na ba xalaat ne you know what Lee is not working for me the guy's all he wants is to to be able to get a job and pay his way yow nga ne du fi am di nga indi record yu yàgga yim doon attaqué di président nga foog ne loolu dafa tax gars yi look ko any different no he is from UDP joining NPP of course he is a treasure to them nga foog ne UDP nga foog ne NPP dañoo fulis to bàyyi Modou Sabally go no pare Modou Sabally dafa jógee NPP mu dem join ay eh, eh, APRC brothers am bu leen fàtte ne two high rankers in nekk parliament they were working with him during Jammeh's regime so who who told you guys that Modou Sabally dafa far wait from nekk no UDP ali fanyo dia mola lukala ali mol blood tunkunto ñun taluñ leen dëkk bi métti na dëkk bi seer na ñun jaaxle nañ fi nekk nii the last thing we want is drama yéen nag da ngeen mel ni attention seekers ngeen yéen ñeme ngeen attention So leen am foog ngeen create something UDP su dara UDP daal progress la ñoo bañ su dara xewut ci social media bi nga gis kenn ku génn ah président Adama Baro. Yi, you are doing this you are doing that pour rek ñu notice leen ne you guys are still a party. a party that's been running for 20 something years and never get the chance to be it. So ma nekkoon yéen yéen a président Adama Barrow dafa war resign even Baba said that président bi dafa war a resign this nga gis Baba But sometimes dama foog ne <laughs> Baba dafa <laughs> memory loss baaba nga mag président Adama Barrow téeméeri yoon liggéey ci government am musuloo xalaat resign yow right now is about time nga resign from politics and then let these fresh bloods ñu come over waaye no baaba mu ne foog mu nekk president in the Gambia to the extent what's important sax gisu ko kaab la bu ko wax dee man anyway man I'm going to die very soon anyway so xaaral ma wax ko rek te dee te ku ma saaga ma saaga la man gënu leen maa ñaaw laa amee saaguma kenn si suma wax waaye ku ma saaga dinaa la saaga loolu moom nay leer rusuma ci ken mus naa gis lii waaye NPP yéen tam sikka ngeen ay NPP defar leen seen niti démba yi NPP démba bi méttee ñoom Modou Sabali bi ñu leen di attaque seen own supporters yéen ñoo leen doon difen ay waay NPP su la nit ki nekkalee ci naaj bi nekkal ko ci ker gi NPP mun leen mun leen seen nit soo gisee léegi su leen UDP di attaque kenn du génn amut kenn si yéen supporters yi nekk NPP Ko xam dina génn in in in in in in defense of NPP because eh, ida xam ngeen ko wala xamu ko yaay company seen supporters the youths of NPP they all disappointed they all angry because they feel like ne from from eh, the capital to the north saa yu président bi jógee ñu jóg waaye tey bu teraanga amee ngeen jël ko ba pare njaax laaxal defar wax ji ne waa saraxule yaa dee joxe président yi pour lan saraxule bi ñoo joxe président yi saraxule yi xamuñ ne ñii ñoo xar seen tànki tubéy muy xiin muy taw muy ngelaw the people that were attacking the president ñooñu su ñëwee da ngeen leen di décorer jox leen cop di leen di leen tàccul well done guys yéen ngeen président bi ba mu neexee soo leen ñëwee dañ di will decorate you will will hold like parties for you will be throwing parties and giving you gifts and showering you with dollars and pounds and whatnot. NPP sikka ngeen nag hii man de ñaari parti ñu ngi Gambia soppal te bul lañ NPP UDP te said seetloo NPP e man mënumaa gis ne NPP National People's Party la no it's not People's Party tuddee leen seen boppam mini UDP you guys are the same six ak nine ngeen so gisuma lana between UDP and NPP gisuma seen difference Yena boka mam. yéen a bokk baaba de benn benn agenda nag la gambien si am fekk yéen a ngi dóorante bopp ñun gambien si ñu ngi toog di xaar kan ku ees kuy ñëw kuñ óor ne gannaaw yàlla yonente bi suñ tegee suñu métit li ñoo joytu suñ ko si yaakaare keroog gambien si dinañ jóg campagne like we've never done before gambien si dinañ génn vote like we never vote before rek ngeen acca di I have to love yous and leave yous I'm a bit tired si gaamo laa fanaan ma jox la sa xaalis bi soo ko pour nga xam ne nelaw laaj kering am hmm ginaar kering am na ah, pour xaj yi xoolal jëndal ma lii nu mu tuddaati ah, sooy sooy dedet haral yow ñu nga xaliss torop soy togal haji nga bahalal ma ñaari tanki ganar pour poppi si Ganar. nga seet ko pour suma popé si thank you yoolal ma suma bunta bi tej ko kaay ñu naan ko fi bala ñu nelaw bis Paa Modou Bojang yow am nga benen soxla liñ naan gumbu am na soxla bu wuté tobi pax yow am nga soxla bu wuté Modou sabali try and go see a dentist please te nga bay ci li nga nek xawma loy tukh way de xawma tux waay is not good for you because Pa Modou Bojang man fàtte won na gëj naa dégg Bojang ca élection ya two years ago two years ago how ma three Pa Bojang dal gëj naa koo dal. daal Pa Modou wàcce ñu yow tam sa nawle lañ you are not important we the Gambians don't consider you as a journalist we just is ngeen journalist yi ngeen xam ne yéen a di support UDP doo leen journalist UDP supporters ngeen that's how we call you we don't call you journalist mais leen ñu jaama nag mais leen ñu jaama de su fekkee da ngeen bugg a def seen groupe bi kaay leen ñu du daaneel du woog boobu tam du ko even though I am not his biggest fan wante I am not his enemy either I hate bullies. And what you guys are doing is bullying the guy. Blame you sonal why. Pamadou Bojang balaa ngaa toog nag dinaa def live ma wax ñi la tegaloon bi nga waxee dangaa commit suicide nga delloo ñu suñ xaalis ah get out guys uh, thank you so much yaara ma bàyyi i am a bit rusty this morning why you Pamadou Bojang war ngaa toog di point fingers at Modou sabali modu Sabally xale la dafa war a liggéey te yéen seen baaba mii baaba looya daago moo putoon that ban on him waxu moom mun naa bañ a nekk personnalité waaye time bi moo liggéey ci government NPP si lañ on that ban on Sabali. tey that ban is lifted the guy is young He's intelligent he's got experience of course i am not right liggéey yéen UDP ku ku ku koo leen wala nekkul si seen favor yéen ñi ngeen lu bari nañ oncle Khalifa yéen a ko randal ndom si yàlla si oncle euh, papa Oje yàlla na suuf oyof ci kawam yéen a ko randal. da ngeen gis ngeen yéen dangeen ngeen mënut a xam ne nit dañ leen mere yu bari de soo gisee mënu leen a win because da ngeen da ngeen dañ leen mere si lu bari. the best politician in the Gambia. the cleanest politician in the Gambia Uncle Khalifa Sala. yéen ko eliminate pour close bu close ti ci president bi because time over the president was new most of the things have been done by you guys to do it your way ngeen feel like ne so for Uncle Khalifa neke, with his brains do work do leen bàyyee loolu because every penny counts with Uncle Khalifa Khalifa boo such a dinko ko wax foo dugal wala du rees ngeen fexe fexe fexe ba ko ci boori président bi pour ngeen mun a profito ngeen akimoo all these ambassadors yuñ amoon yëpp UDP supporters lañ woon yu baaba indiwaale on board te ngeen taxaw di wax ko ku jógee UDP dem ci dem ci eh, eh, Barrow yéen bu leen fàtte ne 90 percent of eh, Barrow's government UDP lañ woon ten percent bi rek moo nekka moon eh, five bi APRC la beneen five bi moo nekk some <coughs> some of these people that come along suñ waxee ngeen ne ku doon liggéey si nguuri Jammeh warta liggéey si nguuri Adama Barrow ku nekkoon APRC yi warul these people not Gambians Modou Sabally I never support you musu ñoo gisee eye to eye xamuloo ma xaw ma la musuloo wax hello musu ma laa wax hello waaye this time I am on your side I am supporting you de te is about time nag nga génn emale borom bu ñu daakaande yi muy Pamadou Bojang ebale ko nga fàttali ko bi mu ci airport bi taxaw ci airport bi di jooy ak suweetaama kaki trousers so waxee Pamadou Pamadou Bojang rek mu solu mel <laughs> I don't want to say anything because I am going to upset so many people so please Pamadou Bojang Stop calling Baba His Excellency. He is not. There is only one His Excellency. He is in the State House with his family. And st stop bullying Modu Sabali. All these old records and old audios and videos you bringing back, like reposting, Lord Ken hate ko. Nobody hates him. man dama laa wax ne I have a problem with ramu sabali going back to NPP but not Modou Sabali going to NPP because Modou Sabali dafa soonoon su bindee ñu arrest ko su waxee ñu arrest ko su eh, anything because moom tam dafa ruudoon he was too out there Momodou Sabali was a troublemaker Why moom tam du ko nettali ko bay saa yu jéggee raay ñu delloosi waat ko ne ko fii mooy sa place am léegi tey gis na ne loolu yëpp amul njëriñ he wants to grow up he wants to pay his his due to society nga ne mu Pa Modou Bojang mi ne bu ne du fi am te Pa Modou Bojang yow bi nga waxee ne suñ la indee Gambie nga rey sa bopp ñun Gambien suñu génne contribute jox la nga jël suñ xaalis bi dem start sa <laughs> Pa Modou Bojang ku yabaate nga ku yabaate nga man, I don't have a problem with Mo, uh, eh, uh, eh, Momodu Sabali going to NPP. Dega, dega. Because have not a break from these cells and whatever. Why ramu sabali mumu neka nitko hamenteni man suma suma suma Bat, suma ngor dafa important man suma ma kergi la kër kubanya dinaa ko taal man bi ma support président Adama Barrow dama ne dinaa ko support second termam ba dugga dugg biir state house den man pare naa ci moom and I did exactly that waaye that doesn't mean ne saa yoo leen jógee ngeen attaque président bi kenn du ko defend ñu ñëppay noppi <laughs> suma brother bi laay <laughs> reporting live from Sokoto baña soo leen da yéen UDP soo leen attaqué président bi Gambien fi yëpp dañ war a mute on social media man duma bokk ci loolu even though I am not supporting him waaye soo leen jógee ngeen daanu ci kawam I will always come to his defense just like I am doing with Modou Sabally now dinaa ko def pour any Gambien koo xam ne dañoo jóg pour daanu ci kawam dinaa jog in your defense man nee naa leen fara feñe laa Bena Borbi bi senegal la ben bor bi Gambia man dama set fi diga bi wae rek fa laay waxee yo Bojang yo want to talk xana yo da nga faté Dembo joy ngay joy like a baby you wear a big cry baby crying life sidika bo xamne ne fa nga juddo nga yaro fa ñu sul fa sa jumbax bi nga ne suñ la fi indee nga rey sa bopp Pa Modou Bojang bi nga waxee loolu ba tey indi nañ la Gambie te ba tey deeyuloo Pa Modou Bojang gis give us our money back comme yéen jigéeni UDP yi yéen a mun a taxaw ne na leen Modou Sabally fay ay 20 euros 10 euros yoo leen ko tegaloon Pa Modou Bojang please give me my 40 pounds back. mus naa koo gis. Yin, yin, yin, UDP's way. If it's not UDP's way, it's going to be the hard way. Hey, ñun ñëpp nañ leen runga ci hard way bi fi mu nekk nii parce du highway bi sax fi mu What is it? Can we not have peace? You gain a one week bohamne. UDP, you guys are not boring us. You, yo, UDP, go away. UDP, go away. UDP, go away. You're not going to rule this country. You're not going to rule this country. You're not going to rule this country. bi hadi we have one problem Gambia so soo déggee ñu ne ah, al nga finti al nga Marcel Mala UDP supporters Gambia ha surwal e fulol ibe seyla Senegal e fulol be talali UDP if you hear insults towards the president UDP to attack uh, the people that are working with the president, UDP. To bore Gambians with unnecessary ranting, UDP. Aywa, UDP may leen ñu UDP koni kayra. Eh, UDP fii Allah ene koni accu. Ono non on acceta. Ah! Aywa, UDP may leen UDP yéen nii lañ leen di bàyyee nii nii ni ngeen fàttañu rek ba mel ni ñandaxit toog ngeen si suñ dënna mënuñoo nokki UDP seen nawle lañ ñoo bokk Gambie ntool bee la dente Gambie la altante Gambien altante Gambienol la dukare alaake ala la soljaaru aliye fata mool ma UDP ali fata mool ma moo pa Bojang fata Momodou Sabally la I have a problem with one person Anda Ramu Sabali ndax Ramu lim waxal UDP eh sorry NPP yep dañu teddo wante suñu demee li ah Ramu sumu ne ñew ma gis Ramu duga ker Maymuna Balde di la where is my sister am lay chai the devil is a liar gis nga life ak on uncertain life is so uncertain soo si nekkee parce que àdduna day wëlbatiku soo nekkee ci luy wëlbatiku nag oytu la toog bu baax parce que dina la wëlbati te guddi gu bër ta set lu nekk xëj na ci bàyyi leen soo leen nekkee ci benn parti di saaga beneen parti bi ëllëg dina jot ngeen bugg a dellu ci parti boobu wala ngeen decide ne am ngeen eh! waaye man góob ne ramu rus na ko ramukat rusam gi jar na ko parce que foo wil lañ ko décorer pour gàcceem gi su doon man la. su doon man la duma dawal moto bi dama rus dama dem jëndi cycle bu don man la bi cycle lagi jëndi duma egg moto bi parce que lima len waxal yeb lima len waxal yeb ha PIU officer kabring ayen jassi ayen le i'm like oh my god ram go away already and it's the same ramu sabali who dumped UDP, went back to NPP, and see pretending nothing happens in between. Me, I give up. I'm done. I am really done with this. You see, these people, this, this. You guys haven't had the last of them, this Sabali family. You haven't had the last of them. Toglen. ba pare yéen NPP ñii di jógee UDP yëpp di ñëw na dañ cross capet ci yéen ay swear got God I hands down mun naa teg suma loxo ci kaamil mane ñoom ñëpp dañ ut si xaalis di moment ne elections jot na suñoo vote duñ votal NPP because these people greed moo leen indi NPP waaye si seen biir xol yi yellow blood moo fa nekk léegi nag lo Commando is now President Adama Barola Janarolo. Legi, eh, Allah Commando, Legi, Babala Nyankumongen. <laughs> me, I like UDP. You guys never seems to amaze me. Because you don't they give up. Ngene dangen change Momodu Sabali, wo yai, ak, ak, ak, ak, eh, kele, MC. <laughs> MC moom ma de Friday jot Muna def na ñetti abdoom ñëw taxaw Muna he. Wiley, tell me, No, politics is, I don't like politics. Mm-mm. Te, te, eh, MC, dafa bàyyi woon GDC because he was friends with Modu Sabali. i am not like bu ma phone last year Mangi ngi Modu MC post him there. post him. Modu Sabally could dee binda jox ko post Because so read Modu Sabali, so many, they read Momodou Sabes Momodou Sabally's writing soo miinee SAPS writings nga gis posti MC rek nga ne caa waajee ci jaar <laughs> gu nekk jàmme gi la <laughs> xale bi saaga woon a tribe moo jaar ci binda yi waaye de ñu ne UDP ñu ne ñu nga defante woo yaay ak Modou Sa Modou dem na He he's better off now. The guys. I'm so seriously. I am so happy for him. I am I am glad that he did this move because dina noppaleku ci arrest bi, dina am liggéey bopam, mu delluwaat back to society and give back to society. So man like na li te ene na koko. So eh, brother Mamadou Sabali, congrats. Best choice ever. ramu saabali no you kaatu itele fintita janka foko ah, gis nga bilaay yàlla yàlla yàkkamtiwul dara moom dafa pare àddunaam ji démb tey doog a ñëw kabiri i ka foko wo PIU official ye jasi su si yàlla àndu toom seytaane am ci doole kon tey doomi jàmbur ji simi nañ ko daaxa discipline because of yow because in Gambia whatever UDP wants UDP gets. If not, drama and court cases you do jeex. Guys, good. Me, I'm going to bed, so I'm not going to say good morning, but I'll say I'm going to sleep, so good night. It's my night time right now. I haven't slept all night. So, UDP, jël leen painkiller. <laughs> Mr. Ibu, MC dafa mel ni Mr. Ibu, MC moom. MC mel ni ratatouille cartoon boobu su MC solee ñetti abdu yi ba MC jël man xawma eh, ori sénégalais lépp roos ba MC ne xonxal na tuñ bi MC tam dafa rocc <laughs> this world is not my home billaay walaay ama paasa baay amoon transit MC Roach tuñ bi nag ba sol ñetti abdu yi di jaay Mr Nice Boy am like hey when did I last saw Tom and Jerry on TV <laughs> bye bye guys do have a good day